te mënoon na ko wax ci ay jamono lan nga jàpp ni moo animé Cheikh ba mu taxaw fii nii bu Sénégalais yi waree kontaan wala nguur gi bëgg Sénégalais yi kontaan nañ leen futtil Bassirou Guèye mi dàq ko. am na solo si Cheikh kàddu yi xam ne na ko muy taxawaay boo xamante ni gis na ni sëñ Bassirou da koo taxawoon ci Sénégalais yi muy taxa taxawaay bu ñaaw. Hmm. mu xamal ni dañ ko war futti. pour Sénégal yi seen xol sedd. Mhm. mu ni ndax ndax moom si boppam dafa am ak moom problème. waaw dafa am ak moom problème moo tax mu gis ni kii kat taxawaay bi mu taxaw sama problème bi taxawaay bu ñaaw la. Mhm. moo tax it mu mu ni daal li fi amoon lépp moom mooy responsable bi muy li xewoon si mbirum Adji Sarr. Mhm. mbirum Adji Sarr nag yaakaar naa ne bu ñu arrêté kii di sëñ Basiiru xool mbooleem ku si mas a wax wala ku si mas a taqe wala ku mas a kii ñu jajale leen ñoom ñëpp euh, diglu leen ci mbir moomu ak position bi ñu ci amee woon lu ko waraloon ñoom ñu leeral ko bu ko defee ñu mën leen a booleeg ñoom sëñ Basiru àndaloon si mbir mi ñu mën leen a booleeg si ab saal mën leen see diglu waaye ginnaaw bàyyi nañ raxas nañ loolu lépp amul problème mais daal sëñ Basiru songi hmm. bi mu nekkee si procureur bi. asan loo wax ba ne dugal leen ci saal raxas leen. Hmm? lu loo wax ba ne dugal leen ci saal raxas leen. ñoom ñi nekkoon si dossier Adji saar bi laa ne. waaw ñu boole leen ñoom ñëpp ak sëñ Basiiru dugal leen si ab saal. Ah, ah, laaj leen ba pare. waaw ah, kon fekkee ni kon waruñoo futti rek sëñ Basiiru yam ci moo nekkoon ci dossier Adji. waaw ginnaaw daa laale si ginnaaw daa laale si dossier bi waaw ñu si laale. waaw d'accord lay doog a dégg. voilà c'est bon léegi nag sëñ Basiiru moom. bi mu doonee procureur xamoon nañ ni bu jeexee noonu mën naa doy waar mën nañ ko wàccee kon tey jii sax mën naa bokk si ñuy dem Tamba. Mhm. mais bi ko président Macky Sall yi fal si diir bu gàtt ngay dégg ni président Macky Sall fal na ko taxawal na loo xamante ni ñag na ko. Uh-huh. ñag na ko si diir bu ndaw yaa ngi gis man naan la kenn mënu koo wàccee te buñ ko buñ kenn mënu koo dàq tey it il faut mandat mat da koo ñag daal yaakaar naa ne nag looloo bu fekkee ni président lu mu taxaw ni lii kat décret bi jël naa ko signé ko ñu ne lii kat kenn mënu see def dara ndax signature président la. Hmm. signature signature président war na ko mën a dindiwaat. dégg hmm? naa la dégg naa loolu moom loi xaj na nag mbirum loi la man xam ma. waaye président bu taxaw bind décret ni Assane na dem Touba tey far président ba wàcc may waaj takk sama saak beneen président mën naa bind ni Assane garaawut mën ngaa toog loolu moom war naa mën a nekk te problème waru see mën a am. Mhm. mais nag comme que loi la ak yeneen ak yeneen. ah Cheikh it wax na dëgg ndax nit ki boo amee moom problème dossier ñëw en tant que procureur nga war see taxaw taxawaayu liggéeyu liggéeyu procureur nga taxaw si yenn taxawaay yi day metti xolam day tax ni man donte man même bu ma tooñoon sax taxawaay bii waru ko ci amee dafa war a taxaw taxawaay boo xam bu leer la ci bopp ñaar ñi nga xamante ni am leen te naa ko yoon ndax ay déformation ngay dem ba fenn fi ba muy amee ndam si bitim réew loolu mën naa ñàkk mais alhamdulilah daal euh, Sénégal la te ñoo ko bokk waaye sëñ Basiiru moom mi ngi fi yoon it mu ngi fi mbir maa ngi fi mbir mi daal yaakaar naa ne bu leeree son bu ñëpp danañ si danañ si ñëw. bu gaa yi ñoo xaw a yàkkamti affaire rek mais lépp dana leer. Hmm. Hmm. man loolu laa gëm li ma gëm mooy lépp lu war a leer mbiru aji bi mbiri ajeeg mbiri diw ak mbiri diw ak mbiri diw ak mbiri président Macky Sall ak mbiri ñi mu àndaloon ak mbirum Ousmane Sonko ñuy révélé yëpp mucc ñu si mbirum Ousmane Sonko ñi àndaloon ak ñëpp dina leer mbiru patriote yeeg mbiru chroniqueur yeeg mbiru mbir war ci seen yoon ah chroniqueur yi <laughs> chroniqueur yi xam nga ah ñoo xam ba affaire yi fu affaire yi toll ñoom la yow yaa leen jiite. ay fu affaire toll ñoom la restauration yi def te ku génn weer di ku génn wax dara ñu ne xamee mu ko woon noonu defee nii bala nga bàyyiwaat mu seet du nga ko ci bari leeree duñ ci waxati te dañ see war di a wax ak sa njaboot rek Assane maa ngi wax ak ñoom dañ laa déggut dañ maa nanguut a dégg te danañ ma dégg ndax dinaa tàmbalee pelante waaw chroniqueur bu génnati di référé loo xamante ni sa yoon nekku si dinaa la yóbbu si yoon ndax mënumaa jiite sama njaboot mm. ñu nekk fi di wax lu leen neex te bu affaire bi leeree non attani ba kii fii néew néew woon nañ bàyyi yóbbu ci yoon lu gëlëm gàcce ko yóbbu ci ah, nañ bàyyi li ñuy def kon yow xam nga ne xam naa ne mën naa da nga si dikki mbirum Nabou Leye mi chroniqueur ni ñu si taxawee te li ñu si wax lépp dara du dëgg ah, ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen yu bëri kon nag il faut que ma tàmbali leen na yóbbu si yoon ñu bàyyi loolu nañ bàyyi référation tey wax si li xew seen xalaat li xew nañ siy wax seen xalaat mën nañoo wax nit ñi dinañ leen diglu fañ bëgg àgg dinañ fa àgg te duñu tooñ duñu wax lu amul nañu bàyyi référation yi ñuy def te dara du si doon dëgg. nañ ko ba doxe hélas. saa woo na ko tey suba yaa ko tey de am na ci baat yoo xam ne mën nga koo wax mais yaa koy tey. référation référation moo leen asar ah! <laughs> yi kay xam ne. xam nga commentaire yi. waaw ñoom ñëpp a ne may wax man man ñoom laay waxal joxe hélas. commentaire yi am na solo am na ku la xamee hélas xam rek baax na. hélas mi xam. ñii di seetaan xam. hélas bu si na ku fi nekk naan asan xamal lan comme Kader day wax bu bari doo xam. lu wax kooku waxul la am de <laughs> Luis la tudd de. Luis waaw. war ma commenté capturé ma commentaire bi nga am waaye ma ko whatsapp. loo koy doy. <laughs> am waaye ma ko rek. <laughs> non non day wax xalaat. non dañuy dem si yoon. yéen ñaar waaw ci loolu kese. aw kese Assane Assane comme Kader. waaw. ah ñu dem si yoon. baal ko rek. day wax xalaat dem si yoon am waaye ma ko whatsapp. Assane baal ko. Ah, na ma baalu. na commentaire am waaw dina la baalu léegi fii dina wax maa ngi jégu ma baaloo nga wax ma waaw alaaji mm-hmm. gajaga de lii ñu la tegal nii la wax di càkkuteef goo xam daal nee na mooy tax xolu Sénégal yi sedd ci